tàggoo ci diggante waay dencante yi ana lan moo ko waral ginnaaw loolu ñu xuus si laaj lan moo waral tàggoo bi nga xamante ne si bari na loolu seetlu nañ ni bari na loolu ci jamono ji ñu nekk ci diggante waaye dencante yi ndax góor ñi nga xamante ne si nii ñooy takk soxna ñoom ñoom ñoo mënatut a yor wala itam jigéen ñi ñoo sëytut wala tamit yaay ki nga xamante ne si mooy ko jigéen ki moo sëylootut doomam wala tamit goro yi tamit ñoom dañoo yërëmatut ñi nga xamante ne si ñooy seeni goro ci biir kër gi bu ñu seetloo ñoom ñëpp am nañ ci ay part de responsabilité parce que kii di jigéen ji seetlu nañ ci jamono ji ñu toll dañoo li ñuy tànnee boroom kër doonu dara lu lu dul taar walla alal ja li ci ëpp sax ci jigéen ñi alal la ñuy tànnee boroom kër te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñuy digal ndaka la ñuy tànnee borom kër dani iza raaytum man tardawna diinahu qulhu fa zawwijuhu su ngeen gisee koo xamante ne sii nii gërëm ngeen diineem na ngeen ko dem sëyale waaye nag au contraire alal la taamoo moo tax bu fekkente ne si da ngay taamu alal góor gi xamante ne si mi da lay si di ñëw di di la ngore si pour bëgg la soxna moom it du la wax dëgg ndax góor ñu ci bari ci jamono ji ñu nekk mën nañ ngoro lool. waaye nag bu ñu demee ba ci biir néegu sëy yi dootuñu ko mënati ndax olof ñaay dafay faral di wax naan ku jënd jund ku jënd judd sonal sa bopp ndax bu sa bu sa poos jeexee di dégg keneen ku dul sa maam waaye tamit ku jënd jabar boo jeexalee mu ñibbi kër baayam moo tax jigéen ñi lu ci bari moo tax sëy bi du mën a yàgg ndax góor gi ñëw di la ngoro si lu ne dina la ko defar boo ne ko woon sax jëlal euh, jumaa jee indil ma ko ci sama kër gi donte ko mënoo ko di ko jéem wala di ko fenn ko dinaa la ko indil loolu moo tax it sëy bi lu ci bari du mën a dox kii di ñi nga xamante ne si tamit nag mooy parents yi muy goro yi nga xamante ne si moom la ñuy ñu ci bari dañoo yàkkamti ba sa goro ñëw sa doom takk soxna nga jël jabar jooju def ko mbaam te ñoom ñoo war a ñooy ñi nga xamante ne si ñoo war a jàpp ci sëy bi sëy bi dox. ndax bu ñu jàpp ci sëy bi sëy bi mën naa bañ a dox ndax yaay ak doom dañoo jege lool te kii nga xamante ne si mooy góor gi dafay dem génn dafay tukki wala mu génn pour wuti lu mu teralee jabaram mais yow mi nga xamante ni si yaa yaayam yaa nekk ak soxnaam ci biir kër gi chaque jour nga diko wo niko ni sa jabar ji ka def fi nangam sa jabar ji ci lu bon la dëkk diko wax len lo xamanteni ci da fay yak xalam man na tax seen diggante euh a am jangas njagas ta loolu kon yow mi di yaay borom keur gi am nga ci part de responsabilité pour man yow mi di yaay borom keur gi su fekkente ne sa doom dafa tak soxna dang ka wara yamale dom ji nga xamanteni ci mom nga jur ndax kat sa dom ji nga jur mu dem ji yow bëgg nga fa ñako yor ñu aar ko ko di ko jéggal te di ko jéggal di ko jéllale ndax sa doom ji nga jur mi ngi lay def loo xamante ne si neexu la tax chaque jour da nga koy raay mu jàll bàyyi ko noonu kon ki nga xamante ne si moo bàyyi fameem bàyyi yaayam bàyyi baayam bàyyi ay pap mbokkam yëpp ñëw ci yow ngir sëyal sa doom te yàlla rek tax donte ko sax mi ngi def lenn loo xamante ne safaanoo na dee ko yërëm te di ko jéggal def ko comme sa doom ji nga jur soo ko defee rek kër gi dina neex waaye itam yaay yi nga xamante ne si ñooy yaay ko jigéen ñi tamit moom mi am nañ ci part de responsabilité ba tey ndax ñoom da ngay jël sa doom yabal ko mu sëy bu ñëwee ni la yaay kat dañ ma fay def nangam ak nangam danga naan ko man juruma mbaam soo mënee dañ lay yor suñ ko mënul nga ñibbi sa kër baa yaatu na loolu moo bari ci jamono ji ñu nekk ndax da am sa doom yebal ko mu sëyi nga ne ko sa kër baa yaatu na buñ la mën a yor yor la ñu la mënoon te yor ñu baa indil ma yoral yoral sama bopp te loolu du sëy te sëy dafa nekkul loo xamante ne si sunu Yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko digle ndax moo ne fa man raxiba an sunnati fa laysa minni képp koo xamante ne si du mooy nga sama sunna kon koo ci man te sëy dafa doon loo xamante ne suñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko fonk loolu te ñu delloo ci wax yi Sëriñ Tuubaa la mu doon digal bu la mu doon digal euh, kii di góor gi jigéen ñi yëpp suñ delloo woon ca wax jooju rek dina baax ndax maa nga naan su fekkente ne jigéen de yor na ñent jukko yo xamanteni ni da fay nakare yor waye goor tamit dina yor yeneen ñent jukko yo xamanteni ni si mi ngi ñent jukko yo xamanteni ni si su ko dina ko mëna yor muni ñent jukko yi nga xamanteni si da koy yor ba kenn du ko mëna yor moy yan muni dalay da lay la mer du la yërëm te du la geureum togn ta boko bo bo len rek mun la musoma defal dara lolu mom jukko jigen la mu waxaat ne yent jikko yi nga xamante ne sii moom lay góor di yor ba man kaa yor mooy da koy da lay muñ manal njëkk di la muñal di jëlale tey jéggale manal gi nag moom da koy manal ci léppam yow mii di góor dangaa war a manal jigéen ji ci léppam manal ko manal ay mbokkam di ko muñal tamit muñal gi tamit daf lay tooñ def la loo xamante ne war nga kaa mën a faj nga bàyyi mu sedd muñal ko ko ngir jimmi yàlla te xam ne kii matut jëlale gi tamit dalay wax loo mën a tontu nga dégg ko nga bàyyi ko mel ni déggoo ko jéggale bi tamit nag mooy da koy jéggal ci léppam lépp lu mu la mën a def rek nga jégal ko ko te nga xam ne matadi moo tax ñu indi ko ci këram ci sa kër mu lay sëyal ndax am na càmmiñ càmmiñam nga gën a ndaw ci kër baayam la nga def te moom boo ko defoon fukkam lu tax nga jot kon nga xam ni matadi moo tax ñu indi jigéen ñi ñu sëy ci biir kër yi te jigéen tamit. dafa am yenn jukko yoo xamante ni si mu ngi ci moom ndax day xeeb tey fàtte démb yàkkamti ëllëg ndax li nga koy defal tey da koy xeeb loolu la nga ko defuloon démb tamit da koy fàtte te day yàkkamti li nga xamante ni si ñëwagut ci ñenn jigéen ñi waaye nag du jigéen ñëpp ndax euh, olof Ndiaye dafay faral di wax daal far dox daan taa ba tey boo demee dem fa fekk tepp tepp ndax am na ay jigéen ñu baax am na jigéen yoo xamante ni si ñu bëgg a sëy lañ waaye ci kaw ñu mën a sëy moy na len seeni waajur jappale dimbali len ki nga xamanteni si moy bëgg a na ci waajur yi ndax alal du dara ta kep ko xamanteni si yaangi dugg ci mom tay ji ndax alal ëllëg man na yag suñ borom ma mayewu dafa able ëllëg man nga nek ak moom ci biir sëy ba ci yag alal goko suñ borom mo joxon nangu ko jox ko kenen man nga dugg ci nit tammi yoru dara nga dem ba ci biir suñ borom ibil ko buntu wërsegam nit booy dugg ci sëy na nga xool jikkoom ba ma doy la nga dugg ci moom parent yi dañ ci jàpp bu baax a baax di soññ seeni doom di leen xiital ci sëy ndax dañuy faral di dégg naan sëy dafa metti ndax neexul nee na dafa mel ni basang la akub sées su fekkee dañ lay tànnaloo yow mi nga xamante ne sa yaay aji dem ji yow mi nga xamante ni yaay sëy dañ lay tànnal ni la toogal soo toogee ci sées bi bu sa doom màggee ci basang gi lay toog boo toogee ci basang gi bu sa doom màggee ci sées bi lay toog kon yow mi nga xamante ne yaay sëy xanaa yéene woo ëllëg sa doom gën a yées xanaa yéene woo sa doom bëgg faj ay soxlaam te du ko man kon nangoo la toog ci basan gi sa doom bu màggee toog ci kaw sees bi loolu rek lañ leen doon wax ci seen émission tey ci di jikko fii ci seen site internet Mourid Info di leen wax wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu